jaajëf ñu dem ci euh, Touba euh, Assane ca mairie ba euh, budget 2024 bi xam nañu ko léegi natt nañ ko mu toll ci 7 milliards yoo xam ni da ah am ñaari Touba. waaw ah, ci doxal. doxalal waaw. waaw ah, dama ni budget ba mairie ba ba natt nañ ko mu ngi toll ci 7 milliards. incha hmm. allah pour 2024 bi. pour doyee ko lan. wóor na yàlla wax ak meilleur chroniqueur non foofu damaa riir. léegi yow question bi mu la wax tey. Hmm? waaw maanaam budget mairie bi deux mille vingt quatre natt nañ ko mi ngi toll ci sept milliards. maanaam gouvernement bi li ñu koy jox. maanaam budget bi li mu war a def a liggéey mairie bi li mu war a liggéey ci atum deux mille vingt quatre yëpp. Hmm. bi mi ngi toll ci sept milliards. Ah, kon kon mairie bi mi ngi liggéey foofu. <laughs> lu asat doo bàyyi ma lay laaj damay laajaat. <laughs> ah ngi nii kay ndaje maa ngi nii Abdoulahat euh, kii ka hmm. ñoo ngi koy nuyu bu baax a baax mooy mairie Touba. lañ fa war a liggéey daal budget bi 7 milliards la. waaw ci 2024 bi waaw baax na yàlla nañ si yàlla yóbbu ak jàmm te ñu defee ko ni ñu ko waxee rek maanaam budget bi bu génne dugg fenn fu dul liggéey bi rek nee na dugg foo xamante ni dañ xam ne lii mairie bee ko def bu ñu amee ab étiquette sax bu ñu fay taf ñu xam ne lii mairie bee. ab étiquette. ticket ñu taf si loo xamante ni. mandarga milliards ngay wax nañ nañ tafub ticket. non comme ça bu ñu defoon ab lampe tey ñu taf sa mandarga moo xamante ni lii mairie bee ko def ndax tubaa loo fa gis léegi bu ñu nee lii lii de macha allah ñu ne waa Touba ci kanam ma ko fa def. Hmm. léegi nag ñoom it mm, waa mairie bi bu ñu def dara il faut ñu fay def mandarga bee ko fi def. bi ma ngi fay ah. liggéey. ah ma ngi fay liggéey ma ngi fay liggéey am na solo trop mais nag il faut que ñoom ñu jëli waa Touba ci kanam ñu jaxasoo ñoom xool nuñ gën a liggéey wala ñoom ñu yëkkati bitsi bi jox ko waa Touba ci kanam ñu liggéeyee ko loolu pour Touba jag dong la. non Touba ci kanam ay volonté lañu as. waaw volonté yooyu laa wax. waaw te ñii ginnaaw dama ngi def résultat boo xamante ni mairie bi defu ko. Hmm. mairie bi bu ñu leen joxee budget bi ni leen defar leen si Touba ñu gis ñiy defar Touba ñu leen am defaral leen si benn la rek day tax ñu xam ne mairie bee ko fi def. d'accord loolu de ànd naa ci. macha allah alaaji mi ngi noonu budget euh, Touba 2024 bi ca mairie ba daal natt nañ ko mu ngi toll ci 7 milliards. waaw xam nga Touba ca kanam li Assane wax ni ne kii koog mairie bi man damay jàpp ni ñoom ñooy euh, concurrent maire mairie bi mairie bi. Hmm. waaw ñoom ñooy concurrent maire bi ca Touba. yooyu nag pareen saay mën na indi ay jafe-jafe. nu koy indee. waaw parce que galgalante mën naa am ak caxabal ak affaire yooyu parce que dañuy jekk di Assane wax nii rek lenn la ci galgal parce que bu ñeen nee nii ne Touba ca kanam a ko fa def mm-hmm. euh, dañuy jekk-jekk ne mairie bi defuñu dara léegi-léeg tamit waa mairie bi tamit peut-être. mën nañuy gal-gal waa Touba ca kanam waaw mën na ne parce que parce que li ko indi rek mooy mooy mooy mooy ñaar ñaari mbir yi waaw xam nga moo tax man dama jàpp ni euh, Touba ca kanam ak mairie bi soit mbirum mairie bi dafa waroon a nekk rek mbirum ñu ne jox nañ ko tuubaa ca kanam mu nekk ko wa ilaa Touba ca kanam nekk mairie bi parce que hmm. lépp Touba la wala du noonu lépp rek ngir Touba bu ko defee benn galgal mën na bañ am benn caxabal mën na bañ am bu ko defee ñoom ñëpp ñu liggéey ci sensu kii parce que tey ji Touba ci kanam mën na def nii mairie bi ñëw dagg tiwo to jaarale ci kii ba ne moom it day liggéey ah. maanaam mën na indi benn kii quoi mën na indi benn ruube boo xam ne bi mën na am parce que ñaari la yoo xamante ni bi yu ñu reconnaître la yu fa nekk mm-hmm. ñii di defar ñii di defar xam nga tey ji yow waxoon nga ko ne xaw ma fan boo demoon bëgg koo defar ñu ne la doo ko fi defaree. waaw waaw dëgg la parce que tamit euh, mën nga ko. autorisation <laughs> comprendre waaw c'est que loolu mooy problème mu euh, kii bi. Mhm. Euh, mooy problème mu mairie ba ak problème mu Touba ci kanam parce que Touba ci kanam liggéey yi muy liggéey yëpp daanaka liggéeyu mairie la. Mhm. day def loo xamante ni mairie baa ko war a def. waaw comprendre léegi mairie ba moom finalement. peut-être mën na bàyyi tamit tëdd tegalay tànkam bàyyi Touba ca kanam mbir yi. mais Touba ca kanam da koy def ba noppi boole ko ki publicité léegi loolu day wane chaque jour ne mairie bi defut fi dara. man maay def. Ah, comprendre nga. c'est que yooyu nga xamante ni moom la am li ñu naan ñaari kuy mënuñoo bokk mbalka loolu mooy li nga xamante ni. waaw moom sama koñ. waaw Touba la ma xam. la fa nekk di ay lamp ak tali Touba ci kanam ak loolu xam nga mairie bi ko war a liggéey waaw léegi loolu loolu problème la boo xamante ni bi mairie ba dana ko am ba ngeen ñëwee màggal la ngeen fay gis muy leer noonu Touba ci kanam waaw xam nga loolu mooy problème bi léegi finalement nit ñi dañ ñaan mairie bi ban njariñ la ñu amal moo tax ma bëgg mu joxe xaaj comprendre <laughs> yaa ngi dégg <laughs> mais nag est du ñu ngay liggéey mais seen liggéey moo génnul est-ce que du seen liggéey génnul rek comme Touba ci kanam day fay ay publicité di wane li muy liggéey est-ce que du loolu la rek xam nga <laughs> en tout cas problème la de ah. sony lii ah. ñuy wax nii hmm. wóor na yàlla waa mairie ba bu ñu la waxee problème la d'accord parce que am man jàpp naa ni lii mais le fait que Touba ca kanam dugg judd bu Touba sa kanam juddoo dafa waroon a fusionner ak mairie bi waaw li ñuy liggéey jéem a doon benn ñu jéem a xool nu nga xam ne noonu la ñu ko parce que sinon li war a yemb yëpp mën na bañ a yemb ci blocage parfois ñoom duñ la ko wax waa Touba ci mais peut-être yenn yi mën na am ay blocage ay galgal yooyu. yoo xamante ni bi dina am. parce que mairie ba nag moom mooy ki nga xamante ni kii moom moo war a def yenn yi. Mhm. waaw donc leer na ma ni am na ay blocage ak ay affaires yoo xamante ni bi da am. te ñii tamit du ñu bëgg bàyyi affaire bi mairie bi. parce que Touba ca mhm. euh, nit ñi nga xamante ne bi ñi ngi versé xaalis bi nga xamante ne bi moom la ñuy versé ak yooyu tamit duñ ko bëgg a bàyyi ak mairie bi tamit macha allah voilà